abonné leen ci chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin te activer cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngir man di ko jot ca tàng-tàng ba aoudubillahi min alsheytaani irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ixwaani almuslimina walmuslimaati ay ixwaani sopp nabi ñu ngi sant yàlla mosul seytaane sant yàlla julli ci yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam leen nuyu ku nekk si ak santam di nuyu ku góor ku jigéen ñi ñuy déglu fépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baalu àq di ñaanal yàlla e, yàlla yàlla dafa di ñaan yàlla yàlla dafa sutura yàlla yàlla e, àggale nawet bi lu ci waay jiw yàlla na ko góob yàlla yàlla sutura. bi xurmati nabi sallallahu alayhi wa sallam waaye di ñuy wax ne e, yàlla borom bi subhanahu wa moom moom nawetam lu mu wàcce ci yow ci nattu rek nangul lu rek am solo bàyyi wuñu kenn nag ñi nekk ci maanaam daara ji nga xam ne moo ñuy wax sopp nabi e, sallallahu alayhi wa sallam di baalu ñëpp ak macha allah yal na yàlla dafa ñu sutura yal na yàlla jéggal ñu E yal na yàlla saafara jàngoro yi yal na yàlla yërëm suñu néew jullit ñu amul borom kër yi yàlla yombale leen ko ñu amul soxna yàlla yombale ñu amul njaboot yàlla yombale leen ko ñu ñaanal macha allah takk der yi macha allah ñu ne ci biir ak ñu ci génn ñëpp fi ñu waaye déglu daal ñu ngi lay jaara ñu ngi lay baalu ak <clears throat> mbokki jullit yi bii passé ñu ngi jàngoon ndeysaan macha allah ñu ngi révisé woon wax nañu dañuy révisé révision la ñuy def lan la ñuy révisé mooy macha allah ki nga xamante ne dafa war a jóg dem gis ak borom bi subhaanahu wa taala na ko daan defee wax nañ ko ginnaaw wanag ba e, wax nañ ko kon ndox ma ngay yóbbu ca wanag ba loolu lañ doon wax ndox moomu ñu ne ñett jikko lay am lawnuhu taamuhu raihatuhu law na melokaan ba taamu cofka la raihatu xet ga kon ndox day am cof ko am melokaan am xet am am am xet waaw caf ko melokaan xet yooyu bu si dara changé rek macha allah doo ci mën a wisu doo ci mën a sangu set doo ci mën a jàpp yeneen nag nga ko si mën a defe mën nga si def yeneen yoo xamante ne du wàllu et pour préparer préparer wu dem gisee ak borom bi subhanahu wa taala mbokk yi eh, ndox moomu am nga ko. moom nga yóbbu wanag ba wala yaa xam da nga ko fa fekk booy dugg ci wanag ba nag dafa am looy wax loolu macha allah ñu bëri duñ ko wax dañ ko xamul wala ah, dañ koy fàtte dafay bokk nag mbokk yi booy dem wanag bul xaar la ngay génne na këtt na jonn nga bëgg a dem foofu mënoo ko fa wax dina ko indi ba doo ko wax waaw boo yégée ne yaa ngi bëgg a tuur ndox demal yaa ngi bëgg faj aajo mooy wàccee coono gi demal waaye bul xaar ba mu ne këtt na jon maanaam ba mu egsi tuur ndox bi di ngay muuti muuti mën a dem doo fa wax loolu de parce que yow talatoo dara loolu loolu na génn bu dee faj aajo yi lay ngay nekk di wëralaatu di ñëwaat muuti muuti yooyu day tax encore doo mën a wax wax ji te yonent bi salaa sallam daka daan wax te moo ne képp kuy dugg duus lii da nga ko war a wax kon nag nañ ci bàyyi xel mooy lan douze it boo fay dem waxoon nañu ne doo def yaramu neen non non da ngay solu doo def yaramu neen bëri na ci nag ñu koy def ñii kalasoo la ñuy dem dañuy sol góor ñi jigéen ñi dañuy taraxlaayu bopp neen kenn de laa xam ne daal ñoom daal eh, peñuwaar daal ñoom la ñuy wut peñuwaar boo xam ne day wàcc ba seen omi yi ñu daal di macha allah eh, sol ko daal di dem wanag kon nag jël nga sa ndox mu laab moom yaa ngi dem ñëw nga ba ci duntu duus bi lan ngay wax. bismillahi jàpp leen ko booy dugg duus balaa ngay dugg bismillahi allahumma inni auzu bika min al xubuthi wal xabaa'ith min al xubuthi wal xabaa'ith su ko defee loolu la yonent bi doon wax looy wax bismillah looy def bismillah nga war a tàmbale yaa ngi ci biti duus bi duggagoo ci duus bi bismillahi allahumma inni auzu bika min alxubuthi walxabaisi mbokki sopp na bi UPA nag tari la nag tari nag ku nekk na nga dugg nga tari ndax ñu xam ne ah bi e eh, ku ko fàtte woon fàttali ko ñëpp ñoom soxna May ñoom soxna Asook ñoom imam Malik imam Alpha ñoom ma ñing góor gi ma Lamin xawa yëpp tari daal loolu daal laa bëgg ak képp koo xamante ne yaa ngi déglu audio bii ne yonent bi salaa sallam bu daan dugg toilette balaa muy dugg lii lay wax bismillahi allahumma inni boo koy bind doy ànd la ci français auzu bika minal minal xubusi wal xabaisi nga daal di jiital sa pied gauche gauche la jiital ci toilette moom ngay jiital bëgg nañu boo àggee ci biir waaw wala balaa booy dem ci biir bu fa yóbbu tur yàlla wala lu ñu bind tur yàlla wala tur muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëgg nañu boo àggee bul taxaw summeeku mais xawal jonkon tuuti dal di summeeku macha allah duus dugg noppi doo wax duus dugg noppi doo wax amul loo fay wax moom duus duus dugg noppi loolu la ñu wax loolu daal yomb na ku ne dégg na ko duus doo fa wax dugg noppi la ñu wax def la ngay def daal di génn macha allah lii la yonte Muhammad sallallahu alayhi wasallam daan wax teggin sax bokk na ci la ngay génne doo ko xool waaw doo ko xool ci set nag e, boo demee ci toilette la nga fay def na nga fexe nga daal di sotti ndox mu dem yoonam mbokk yi léeg nga gis ñu baree bare léeg-léeg nga dugg si duusu kër yi wala damaa bëgg dem duus ñu tere la ko kon la am solo moom mooy lan e boo defee langay def ba pare bu dee matière bi la tuural ndox mu dem yoonam moo gën mu set loolu mooy teggin ci ñiy déglu audio bii waaye bëgg fa def la nga fay def ba pare nag daal di ko fa bàyyi dem sa yoon loolu jekkul loolu jekkul bokkul ci ay teggin ndax loo gis rek dafa am teggin nag kon nag bokk na ci tegginu duus la ngay def matière boobu ngay génne sotti si ndox nga dem sa yoon moo gën bu taxee sax sottiwaat si ndox mu dem parce que ndox nga fa. kon nag lii la yonent bi sallallahu alayhi daan def macha allah bu pare e la muy def bu fekkee génnee wàccee coono la ba pare foofu am na lu mu daan def buy wisu maanaam buy raxasu du raxas fi màccet bi di njëkk a génne dafay tooyal ndox loxoom ba pare dal di wisu daal di soog a raxas daal di commencé fay tuur ndox bi di génne daal di nag commencé nag raxas fay matière bi di génne looloo la daan def e kon yooyu duusu kër yi la dina ñëw ci duusu biti bi duusu àll ba yëpp ñu fay demee incha allah foofu dafa am ay yoo xam ne moo la fa war kon nag loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax soo paree wutal saabu nga raxas say loxo ba mu set wecc yooyu eh, baax na ci hygiène la loolu ci hygiène la bokk raxas sa loxo ba mu set wecc eh, xet gi bañ laa topp moo gën léegi nag jóg na buy génn lu muy wax ak ban pied lay jiital suy génn pied droite bi lay génnee. tànk droite bi ndeyjoor bi moom lay génnee dugg gi càmmoñ génn gi droite la dégg nga soo génnee ba ci biti nag eh, ci lu gën a gàtt mooy xuf raanaka xuf raanaka moo gën a gàtt xuf raanaka moo gën a gàtt daan na waxit eh, alhamdulillahi allazi azhaba anil aza wa afini loolu daan na ko mosaana Eh, wàccee coono ba daa wax ne alhamdulillahi lazi maa ngi sant yàlla mi nga xamante ne azhaba anil aza moo yóbbu lor gi newoon ci man ah fi nii mu jàmmal ma ku ne xam ne ne eh, faj aajo yi eh, ku mu ku mu ñëwee ci yow daa am coono daa am coono coono ji deñ moo tax moom loola daawa yàlla maa ngi sant mi nga xamante moo yóbbu lor gi ne woon ci man moo ma ko génneel ba mu feex te mu waaw moo ma ko génneel waa fi nii te mu jàmmal ma mbokk yi am na ñu bëgg a dem toi douze mënuñu dem douze am na ñu bëgg faj aaju mënuñu faj aaju lañ ci seere gis nga kon nag salaa salaam lu leer lay wax si seere waaw coono daan na defit bu daan wàccee coono tànk droitam bi daf koy samp gauche bi mu lem ko ndax matière ya fa muy génnee fa muy ne mooy ci côté gauche ba côté boobu lay ne kon daan na ko def day banque tànk ndeyjoor càmmoñ bi samp tànk ndeyjoor bi ko defee foofu da rek lépp wàcc moom sallallahu alayhi wasallam ci ay tegginam njànganam saan ndeysaan yëpp rek mu ñuy bañ xeetam loru xeetam loru rek moom sallallahu alayhi wasallam yëpp mënoon na ko bañ a wax waaye jàngale na ko xamle na ko eh, te muy lu wér eh, médecins yi xam nañu ne matière bi ngay génnee Eh, côté gauche la nekk mbuus bi côté gauche la nekk soo soo bankoo sa ñaari tànk yëpp nag da nga koy naj moo waral nag eh, eh, ngay sonn yenn onko yeeg yu mais boo lemee côte pied gauche bi pied droite bi nga samp ko boo poussé léppay ñëwandoo loolu lu leer la kon nag bu ñu ñëwaatee incha allah ñu dem ci douche yi nga xamante ne moom moom foofu ngay demee àll ba mooy àll ba foo xam ne amul douche waaw doo jublu penku nag foofu yëpp dañ fa ñëw incha allah rabbi kon daal booy pied droite ngay wax lan xufraanaka xufraanaka jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy ziar ñëpp juma mubarak salaamaaleykum wa axiru daawaana alhamdulilah rabbil salaamaaleykum wa rahmatullah